إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله اليوم فال بدراو شيخ برام نور فال يايكم فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله أمر شيخ فال mbokki julliti mbokki taalibe mbokki Touba Argentine ñoo ngi leen di siyaare bu baax yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV ñu amoon xew-xew bu am solo bu ñuy dëgmal muy ñaar fukki fan ci weeru koor ñu war ko màggal fii ci Argentine Eh, dëppook eh, fukki fan ak juróom ci weeru juin bii ñu jublu ñu di ko defee foofee ci hôtel Bawane kenn ku nekk xam ne ñaar fukki fan ci weeru koor nan lay def ci xolu murit yi rawatina Baye Fall yi nga xam ne ñoo gëm maam Cheikh Ibrahima Fall ah, àdduna di dox di dox ba ñu yegg si fii ci Touba Argentine di ko fi màggal bu ko defee du ñu def lu dul jox ki nga xam ne mooy jëruñu sëriñ Touba fii ci Touba Argentine ñu gën ko xam ci Serigne Ñankooba Gueye ah bu ko defee mu wax ci mboolem turu daayira yi fi nekk bu jox Serigne Mourtala Touré Bassirou Mbacke ah, bu ñu fa jógee jox ki nga xamante ne nii mooy buubu seen jëwriñu Baye Fall yi mu wax programme bi nan lay tëddee ñoo ngi leen di siyaare bu baax kon lu ñu def lu dul di jox Serigne Yankoba kàddu yi. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala xeyr al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xeyri bi ñu sante suñu borom subhanahu wa taala di jéggulu suñu borom mbooleem suñuy rëcc rëcc ñoo ngi jéggulu mbooleem taalibe yi yëpp yëpp àq joo xam suñu diggante ak yéen di leen baal àq di leen baal ci weeru koor wi sahru ramadan wi ñu nekk dañu ñaan sabaru yàlla yeggale ko jàmm bu loolu jàllee nag e, ñoo ngi yëgal mbooleem jullit yi ne ci dëkk bi yëpp di yëgal mbooleem taalibe yi e, suñu bis boobu nga xam ne mooy bis bi nga xam ne ci la gisee nag ku tedd ki doon joxe boppam muy ñaar fukki fan weeru koor wi te suñu mbokki Baay Faal yi ne ci dëkk bi di ko taxawal ci njiital sëñ bu seen muy ñu am pastef ñoo xam ne bépp liggéey boo xam ne yëkkati nañ ko ci dëkk bi rek ànd nañ ko taalibe yi ba mu rafet bépp bis bu nga xam ne mbokki taalibe yi fi nekk kër gu ci mën a doon rek boo geesoo da leen gis kon nag ñoo ngi woote ci ci ci turu taalibe yëpp rek bépp daayira boo xam ne nekk nga ci dëkk bi ñoo ngi la ci woo ñu bokk àndandoo ko def ko defin wu rafet ba liñ ci yéene lépp rek suñu borom defal na ko ci barkeeb maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne liggéeyal na sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne ku ne xaj na ci kon ñoo ngi ci woo taalibe bi yëpp xam naa dañuy yemale foofu suñu kàddu rek comme sëñ Mourtala Touré mu ngi suñu wet euh, dinañ mën a gën a yeggaleel kàddu yi jërë ngeen jëf. min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaan arrahiim maliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala ddaalin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba na a tedd di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi it suñu kilifa gi nga xamante ne bii moo fi teew di sëriñ Yanqooba Géey jiite ñu ci liggéeyu Serigne Touba fii ci fii ci dëkk bii di Argentine ak mbooleem ñi nga xamante ni bi dañoo aju ci ginnaawam ñépp eh, di rafetlu it jataay bii nga xamante ni bii ki ñu koy jataayool muy maam Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam na ni day kenn ci yoonu murit mm-hmm. te ku ne xam na ni bu dul woon moom ak kenn du jariñu sëriñ Touba. te kenn ku ne xam na ni jiituwul Sëñ Tuubaa waaye jàpp na lam am Sëñ Tuubaa kenn amu ko Sëñ Tuubaa mu mel ne kon bisam bisu ahlul sunna bi yëpp la bisam képp koo xam te ni yaa ngi wuyoo ashadu an laa ilaaha ca nga bokk ndax dañuy faral di wax ne baatum murit du caagi ne ki ko doon rek la waaye képp ku doon ab jullit ca nga bokk kon ca Cheikh Ibrahima Fall dafa doon ab murit saadix ndax dañuy wax ni morit rek doyut waaye doon ab saadix moo am solo te ñoom dañoo doon ay murit saadix kon nit ki nga xamante ni bii day wuyoo ci ak murit na jéem a gëstu ba xam lan moo di ak murit ndax ak morit génnul ak taalibe ak i teggin ak xam walla soo xamul ñu xamal la te nga nangoo xam lu ci te ku ne xam na ni yoonu Serigne Touba wii suñu demee ak réer ci ni ñuy doxalee ci ñu diggante suñu kilifa kon xam ne ni jëmmi Cheikh Ibra tax képp koo xamante ne bi yaa ngi dox ci sa diggante sa wasila doxalin wa anam wu rafet anam wu tegginu ku ne xam ne bi Ibra Fall ngay roy mu mel na kon bisam bi nga xamante ne bii ñu ngi koy waajal fépp ci àdduna foo dem ci dëkk yi nga xamante ne bii nit ku ñuul ma nga fay nooyee ñu ngi ko fay waajal ñun ñu nga xamante ne ñoo féete fii nga xamante ne ci Amérique latine bi féete fii ñuy wax Argentine ñu di ko fi waajal ci ñaar fukki fani yi eh, kon jàpp naa ne bépp murit boo xamante ne bi yaa ngi ci dëkk bi wala bépp tijaam wala bépp xaadir wala bépp laayan boo xamante ne yaa ngi ci dëkk bi ñu ngi lay woo ci bis boobu di la xamal bis la boo xamante ne bi bisub ñëpp la ndax képp ku di ab julli ca nga bokk mu mel ne kon jëmm jooju du ko ñuy fàtte ci kaw suuf mukk li nga xamante ne bi képp ku tudd Sëriñ Tuubaa tudd Cheikh Ibra ndax bu ne xoolee ni daayira yi nga xamante ne bi moo am ci àdduna fépp foo xam te ne def nañ fa kay Serigne Touba rek dañ def nañ fa kay Cheikh Ibra kon moo war a xamal ni kon Serigne Touba ak Cheikh Ibra mi ngi mel ne ndox mu ñu tànk jël bekk suukar def ko ci ba seey yaakaar naa ne kenn ci caa génne suukar sa noonu la mel ci diggante ba Serigne Touba kon mboolem ñi nga xamante ni bi dañoo aju ci moom da ay bayfal jokk ci moom aw sas la ci ñoom woo xamante ni bi war nañoo mën a lu wut baax a baax a baax ndax ñaari kat bayfal daf ci am loo xam ne dañ ko daan bàkkee mooy day nangu di jëf. cay déglu ndigal di ko jëfe waaye loolu moom lañ xamoon ci bay Fall kon képp koo xamante ne bi da ngay wuyoo Baye Fall la xoolee war nañoo xam ni loolu lii ci ngay doxee kon mu mel ne yéen ñi nga xamante ne bii euh, yéen a yor liggéeyu Cheikh bi fii nga xamante ne ci kaw suuf ak fii ci Argentine ñu ngi leen ciy gën a soññ bu baax ci ngeen gën cee góorgóorlu bu baax sëriñ boobu ñu ngi lay siyaar yow mi nga xamante ne bii yaa jiite daayira bi ñu ngi lay ciy sant bu baax ci taxaw gi nga ko taxaw ànd ko ak mbooloo mépp sëriñ Assane Baye Fall ak mboolem Baye Fall yi nga xam te ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp suñu paate jóg ku lim da juum kon ñi ngi ñaan sunu borom moom mi nga xam te bi kat moom mooy mottali yéene yi na sunu borom mottali sunu yéene ban àgg ci jàmm ak salaam te anam mu rafet ñu defee ko ko waaye nag àggale ko ci anam rafet ndax sunu borom mën na ko te am na ko te yàlla na sunu borom mottalil ñi ngi siyaar bu baax tey bal ak mboolem ñi nga xam te nañ fee teew kaddu yi nag dañ ko doon wax nag ci turu sunu kilifa muy Serigne Yankoba ni ñu ko waxee rek di sunu mag di sunu kilifa di sunu lépp kon saa suñu joxe kàddu rek dañuy am sañu sañu wax waaye xëy na du lu ñu gënal waaye dañuy wax ni ndigal moom bu fekkunte ne woon aw tur la mën nañoo jàpp ni sant wu mooy nga di ko jëfe te loolu ci la ñu fas yéene dox ci la ñu fas yéene jëfalante suñu diggante ak yéen ak suñu diggante ak suñu borom kon ñu ngi sant mbooloo mépp di gërëm ñëpp di fàttali bis boobu ne la boo xam te ne bisu alxuraan ak weer wi ñoo ànd te ku ne xam na ni sehru ramadan lañ ci teg allazi unsil fihi alquran kon ku ne xam na ne weeru koor mu weeru alquran la kon ñu ngi ci fàttali jaamu yàlla bu ci nit mënoon def na ci gën a góorgóorlu bu baax a baax te bu jógee ci loolu nag continuer ci loolu waaye waxuñu nag nga weer wooru koor ba mu jeex takk ba ne su tey ji lañ séentu weer nga séenu ko xam ne weer waa ngi ne ci ko mu leer suba dañuy wore nga def ko ci bulicee kon loolu na ci ba ñëpp bàyyi xel asalaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibi seen dong boobu seen Baay Fall moo jàttali ay kàddu rek ci la ndigalal Serigne Yankoba Gueye mi nga xam ne moo fi jëwriñ Serigne Touba di ci teg Serigne Moutala Touré muy jëwriñ Serigne Bassirou ak mboolem jëwriñ yi fi nekk ak maam Thierno Amar ak jëwriñ yi fi nekk yëpp ñoo ngi tudd nag kaddu yi dañuy yoo xamante ni mënta ñàkk rek ñu ko yëkkati ndax comme ni ko Serigne bi waxee rek Mbàkke moom fu nekk weneen sant loolu fa dara kon ñoom ñii jëwriñ bu ñu waxee ba pare rek ñun amatul sax. maanaam teggin wax ci seen i kanam waaye nag da day kàddu yoo xam ne mënta ñàkk kon nag bés bi moom nii lañ koy defee maanaam bu ñu xëyee suba ci ñu ngi jël kaamil bi di ko teg ci loxol si ñànk ko ngeen ñi nga xamante nii moo fi jëriñu Serigne Touba ak ñi ko a àndal ak ñoom sëñ Mor Talla Sall ak ñoom sëñ Talla ak ñoom Mame Thierno Amal nga xamante nii ñoom kaamil bi jox nañ leen ko ñu sasoo ko fas yéene ko wàccal maam Cheikh Ibrahima Fall bu demee ba digg weer weer bi tam maanaam xasida yi durus bi ak kuréel gi ngoon gi maanaam ñu sikkar ñaanal sëriñ bi tase ci ngërëmam lépp lu ñu fa sikkar lu ñu fa jàng xasida lu ñu fa jàng alxuraan def ko àddee maam Cheikh Ibrahima Fall te dëppoo cee ngërëmam tase cee ngërëmam noonu la ñu tënk bés bi te lépp nag képp ko fa teew ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall yal na Cheikh Ibrahima faj sa aajo ñëpp di ñaanal Cheikh Sidou Mokhtar mu yàgg fi lool te di ko ñaanal Serigne Cheikh Fall jëm mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal mboolem ahlul waa kër Serigne Touba yeeg waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi gannaaw loolu it maa ngi soññi sama mbokki Baye Fall yi nga xamante ne ñu ñëw ci daayira Cheikh Ibrahima bi ñu ñëw ci daayira Serigne Touba bii ndax mu ne da ngaa gëm Cheikh Ibrahima ma ñu koy jotaayal ñu jotaayal Serigne Touba te doo fa teew maa ngi soññ sama bopp di ci soññ mboolem Baye Fall boo xamante ni yaa ngi ci booleb Cheikh Baye def Cheikh Ibrahima bi nga ciy teew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñuy seetaan bés baa ngi noonu muy ñaar fukki fan ci weeru koor wi nga xamante ne nii moom la murit yëpp yi xaar fii ci Touba Argentine nga xam ne moom la maam Cheikh Ibrahima Fall daj dëpp gi yaakaari jàmm ñu jébbalo euh, la ci Serigne Touba ca Mbacke Kajoor daje woon ak atum 1883 et ci la jébbalo woon ci Serigne Kajoor bi mu nga am ñaar fukki at ak juróom tàggat ndax bu ngeen xoolee Cheikh kookee di Cheikh Ibrahima Fall mi ngi gane jamono 1855 foofee ca diggante Njobbi Fall ak Waqinaan dëkk bu ñuy wax Touré Atumaan àdduna di dox di dox di dox ba ki nga xam ne mooy Serigne Touba wara a jamono Cheikh Ibra di ko wër ba gis ko foofee ca dëkku sëriñ Baara Mbacke ba mooy Mbacke Kajoor kon mbokki Touba Argentine yéen ñëpp bés baa ngi noonu ñu ngi ci woo képp kuy jullit képp kuy taalibe foofee ca hôtel Bawane fi ñu nii na màggale ci Touba Argentine ci ndigalal Serigne Touba jaajëfal di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.